mu def ma ay ree moom mooy ñëw euh, bi muy wax ne ce pays a été dirigé par un gang logé à la présidence. absolument mu koy dëggal. mais le président lui-même Macky Sall euh, Macky Sall lui-même il le confirme moom moo ne ma maa ciy teg sama conc. oui ça dire que quand un membre du gang est touché. damay def damay teg sama conc. aujourd'hui les rapports nag prouvé na ko les trois rapports de. euh, de comment s'appelle de de de de. Cour de la Cour des comptes oui. waat na ko. d'ailleurs IG annoncé nañ ko dinañu génn ñoom it. mais IG euh, bu génnee nga lambay ñaaw. waay bu génnee. Uh-huh. lambay ñaaw et ces rapport là justement rapport yi du du du du Diomaye ko def. waay du Sonko ko def. Uh-huh. président Macky Sall moo defoon rapport yi. muy OFNAC muy Cour des comptes. waaw léegi nag yow ñii boo instruire. le procureur mu commencé ay poursuite uh-huh. kan mooy wax kenn du wax ni Diomaye fay moo créé rapport comme moom nu ñu ñoom nu ñu créé benn rapport contre mu Touré. xam boobu création la. Uh-huh. boobu Macky Macky moo ko commandité pour mën a. xam nga ah, tax bi mu bi mu bi mu génnee ci ci majorité bi gis nañu ay rapport yu ah, laal ay conseil économique social et environnemental ak yeneen. quand même quand même quand même il faut que nit ñi nit nañ bàyyi xel bu baax nañ bàyyi xel tuuti rek. bu ñu xalaatee tuuti rek dinañ xam que. bu fekkente ne euh, c'est pas commandité. ce rapport là du rapport boobu mooy génn rapport bi kay IGE la war a génn. Uh-huh. rapport yi di ñëw. ak Cour des comptes waaye du nekkul foofu. moom mu commandité moom président Macky Sall c'était pour attendre Mimi Touré. Ouais. parce que Mimi Touré a rejoint l'opposition uh pour atteindre taqal ko comme nu ñu ko defee l'ancien premier ancien premier ministre yëpp. Uh-huh. ay Idrissa Seck. ainsi de suite ñu takkal leen. laal crédibilité woom. yàq crédibilité am. pour mun ko tuumaal boole ko ak sénégalais yi ñu naan kii dafa lekk 2 milliards ainsi de suite mais le rapport ba tout le monde sait que c'est pas un c'est un faux rapport c'est un rapport commandité pour taqal Mimi d'ailleurs bu teeloon génn bu ñu teeloon pare rapport boobu. Mimi Touré tey mu nga kaso ba. mais malheureusement tardé na ñoom bu ñu gagné tey. Uh-huh. bu ñu gagné woon tey Mimi Touré mu nga ca kaso ba. wala bokk mu nangu rejoindre euh, fa fa mu jógee. waaye le principal la principale motivation de ce rapport contre bu bu bu conseil économique social et environnemental c'était pour décrédibiliser Mimi au plan national sur le plan politique. Mhm. mais également sur le plan international parce que xam nañ ne su Mimi Touré a des attaches au niveau des organisations internationales. Ouais. donc pour aujourd'hui comme que ñoom les organisations internationales son très eh, exigeants par rapport euh, à la gestion des affaires sur le plan économique. Uh-huh. ñu ne non dañu commandité benn rapport boo xamante ne daf koy épingler et puis ñu mettre un somme une somme boo xamante ne somme bu colossale la moo tax ñu dugal ci ay dix milliards. mais tout le monde sait que ce rapport là contre Mimi Touré c'est un faux rapport c'est un rapport commandité juste. pour atteindre la crédibilité de Mimi de Mimi toure alors bu ñu bu ma ñëwaatee maintenant ci li nga xamante ne mooy ce gang. au niveau de la présidence tout le monde sait aujourd'hui ce gang est euh, composé de qui et qui. ñoo xamante ne ñoo fi nekkoon ñooy buum ñooy mi bu gas gatsa gatsa di am ñoom ñooy gatsa sa bu ñu ne armer les jeunes pour euh, euh abattre des Sénégalais ñoom ñooy euh, joxe les ces ces des instructions. Uh-huh. ñoom ñooy dugal xelal Macky Sall di ko dugal ci ay guuta et souvent sax du ñu feeñ. doo leen dégg. mais am na tur tur yu génn ci ci ci wàllu suuf ñoo xam ne daanaka daawoo leen gis sax. non cest ñooñu cest à doo leen dégg doo leen dégg mais ñoo yore woon réew mi. bu ñu la woowee bu ñu la woowee lu ñu bëgg da koy def à moins que nga nekk koo xamante ne vraiment da am honneur da nga am dignité. Parce que aussi, uh-huh. il uh -huh. y la dignité. Il ouais. y a des Sénégalais uh-huh. La preuve man man lim kenn rek koo xamante uh-huh. ne ñu bëri jaaxle woon nañ comment nan la def ba bàyyi Ousmane Sonko dem yoonam. mooy le le maire de Mbour euh, ki nu mu tudd euh, DG. Euh, Cheikh Issa Sall Cheikh Issa Sall. oui ñëpp xam nañ sa proximité avec Ousmane Sonko. mais jékki-jékki bàyyi Ousmane Sonko. ñu ne day doon euh, digganteem sax ak ku mel ni maître Tall ak yi ci xew yëpp. waaw li ci xew ak ainsi de suite plein de choses tey kooku bàyyi Ousmane Sonko dem rejoindre Macky Sall. oui. rejoindre Macky Sall après ñu dox ko CDC. CDC. mi nga xam ne moom la ñuy tudd tudd nii. Uh-huh. qu'est-ce qui s'est passé. le maire de Médina. oui Bamba uh-huh. borom. Euh, plusieurs quartiers. quartiers yi 108 quartiers yi jékki-jékki moom tamit dem rejoindre Macky Sall. donc il y a plein de choses aujourd'hui da ngay xam ne y avait euh, des gens au niveau de la République ki ne sont pas venus pour gouverner mais sont qui sont venus pour s'enrichir transformer notre République en une rue publique et loolu c'est malheureux. et c'est dommage. moo tax la dernière fois maa ngi naan dama yërëm. Euh, président Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko boo leen xoolee à l'écran da ngay xam ne ñii nelawuñu. waay on ne peut pas avoir ces dossiers là et dormir tranquillement c'est impossible ce n'est pas possible. Uh-huh. donc sénégalais yi ñoom ñoo war a am cet aujourd'hui euh, cette cette maturité. Uh-huh. d'écouter de may leen pour ñu mën a liggéey mais surtout accompagner leen. Oui. je vois également au niveau des de des entreprises. Uh-huh. euh, le patronat ñi nga xamante ne. ñoom kenn demul ñu des am ñoo xamante ne ils font partie de cette mafia le patronat c'est ce patronat là am na ñoo xamante ne ils étaient à la rencontre avec le président Diomaye pourtant ci mafia bi lañ bokk maintenant c'est au euh, président Diomaye am na si ñoo xam ne sax jot def ay photo génn voilà def ay photo uh-huh. sur def ay machin uh-huh. mais ça c'est extraordinaire mais mais il se trompe uh-huh. parce que euh, Euh, le système a changé. Mm-hmm. on ne plus dans l'ancien système. loo am am am loo loo mënti doon doon. Mm-hmm. mënatoo mënatoo def la nga doon def. léegi le système a changé yow sa loxo set na. Mm-hmm. mën nga doxal. sa loxo setul toogal fële ba sa loxo set. wala boog nga ñëw nga jébbalu la nga jëloon nga indi ko ñu compal la. comme a dit le président Diomaye. oui maintenant maintenant gars yi bu ñu nekkee foofu di tardé nag ci ay tardé nit ñi ci ay mm-hmm. détails les gens ne vont pas l'accepter. oui les gens ne vont pas oublier ces détails et li ñu wax ni suuf la ak li nga xamante moom lañ luubal ci entreprise yu ñu nekk. Mm-hmm. sans compter maintenant les avantages yu ñu am dans la république. d'accord avantages yu ñu am mooy. Mm-hmm. yow nga nekk directeur général wala nga nekk ministre wala nga nekk un proche du président wala nga bokk ci gang yow sa soxna wutal nga ko benn CDI dans une entreprise entreprise boobu sax sa soxna xamu ko mu ngi fii de am na fi de am na fi de mm-hmm. sa soxna yow nga wutal ko xëy muy fayeeku six cent mille sept cent mille huit cent par mois te entreprise ba nga ko ba nga ko wutal CDI yi xamu fa parce que du fa doxantu mm-hmm. sa jarbaat nekkul sax ci biir réew mi ma nga bitim réew chaque mois ñu ngi koy versel payoram te pourtant nekku fi mosul xëy xamul sa entreprise fu mu nekk ak ñeneen ñoo xamante ne sa jarbaat sa soxna sa rakk nga uutal ko xëy ci entreprise ñu fekk fa ñeneen yow nga defal ko yi am ñoo xamante ne def nañ fa dix ans amuñu yi uh-huh. jëlal ci benn ci ASP ASP mu nga toj actuellement nii uh-huh. je vous donne une révélation ASP agence de sécurité de proximité l'actuel directeur général. Mhm. bi fa ne dafa am recrutement yu mu def moom bu mu ñëwee parce que Birame Faye moo fa nekkoon mu def fa mu def fa liggéey bu am solo. tey moom mu ñëw mu indi ay recrutement recrutement yooyu mu def ñoom ñoo am na ñoo xam ne mu signé leen des des contrats yi am ñoo xamante ne mu signé leen lii am ñoo xamante ne mu jox leen ay responsabilités. alors que am na ñoo xamante ne ASP bu ñu ko créé ba léegi. Mhm. ñu ngi foofu amuñu CDI. amuñu contrat loolu moo tax depuis bi mu ñëwee. waa ASP ñu fayeeku le cinq xam nga kañ la ñu fayeeku. Uh-huh. le 20 le 20 mois léegi je parle sous le contrôle des agents uh-huh. le 20 la ñuy fayeeku le 20. ça dire dafay parce que budget bi yokkuwul. donc dafay euh, arrangé wu ci budget bi pour mën a fay. ñi nga xamante ne recruter leen ak uh-huh. ñeneen ak ñeneen pour ñu mën a moo tax mënuñu fayee ko uh-huh. li xamante ne moom mooy seen mbirum sécurité sanitaire seen agence bi léegi mënatuñu fonctionner tul li ko li ko indi mooy ak yeneen ak yeneen ñu dégg emploi fictif yi yu bëri yu bëri fu mel ni RTS feneen ak feneen mais 2S mais kii nu mu tudd maa ngi naan 2S mais les enseignants oui gis nga enseignants yi yaa plus de deux cent enseignants yoo xamante ñi ngi woon ci bitim réew di fayeeku ñu ngi leen di virer seen xaalis. oui alors que nekkuñ Sénégal dañoo dañoo immigré. ak difficulté yi sénégal yi doon ah, nekk yëpp. ak sénégalais yi difficulté yi nekk yëpp mais c'est parce que ñoom enseignants yooyu yëpp ci sa ci ñoom lañ bokk moo tax bi ñu waxee ne dañuy def audit di fii di audit de de de de kii bi euh, nu mu tudd euh, état bi. oui ñoom ñëpp ñu ngi ñëw ndànk-ndànk. y a beaucoup d'enseignants de ces gens-là qui sont revenus aujourd'hui au Sénégal ñiy daw di ñëw. mais ñoom ñëpp boo xoolee pendant douze ans nekkuñu fenn te pourtant ñu ngi jot seen xaalis donc loolu nekk loo xamante ne lu doy waar la donc loolu yëpp ay scandale yoo xamante ne tey boo ko dajalee da xam ne on n'a plus une république. oui mais la république est dans la rue. et quand quelque chose est dans la rue. Uh-huh. c'est saboté. d'accord on a saboté ce pays. d'accord alors yaa ngi koy wax léegi ci sa biir wax. Euh, bu ñu gisee ni mbir yi éclaté euh, rapport yi génn euh, rapport of nag génn bu Cour de comptes génn IG war a génn rapport yi